abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activer cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa soxbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala mu boole ñu bal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane tomb boo xam ne yaakaar nañ ne dina wara soxal ñu bare bari ci ñi ñuy bàyyi xel ci chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin wala beneen plateforme ci plateforme yi nga xam ne dinañ ci jaarale waxtaan yi ngir wax tomb bi dañ naan doomu aadama de ak nekkam ci kaw suuf benn ci ñetti bërëb yi ñoo ëpp ci lu koy tënk ñetti bërëb yi li ma bëgg wax mooy doomu aadama euh, ñetti bërëb yi jamono ju nekk li gën a bari day takkook benn ci ñoom day nekk ci benn ci ñoom ñetti bërëb yi benn bi mooy kër ga kër ga bu ñaareel bi mën naa nekk bërëbu jànguwaay bi mën naa nekk bërëbu liggéeyukaay bi bu nee bërëbu jànguwaay nag mën naa doon daara ja mën naa doon école ba mën naa doonit it fa ñuy jànge métier kooku mooy ñaareelu bërëb bi muy bërëbu jànguwaay bi wala bërëbu liggéeyukaay bi ñetteelu bërëb bi mooy mbedd mi waaw waaye defe naa ne ñetti bërëb yooyu daal bi ci jiitu bi ci jiitu mooy kër ga waaw ndax fala doomu aadama bi di ganee àdduna wala sax faneen fu mu ganee àdduna rek ca kër ga lañ koy indi taxawu ko fa ci wàllu di ko dundal di ko yiir di ko aar ak di ko yar kon moo jiitu ci bërëb yi moo tax euh, ñu fas yéene ko waxtaane waaw doomu aadama nag bu nekkee ci kër am na euh, ay charte yu koy tënk tënk nañ ko ci ay yoon yoo xam ne ci la war a jaar bu nekkee ca kër ga ay comportement yoo xam ne ñoom la war a taxool ca kër ga ngir mu mën a jubóog borom bi subhaanahu wa taala waaye itam ñoom ñi dëkk ci kër gi mën a juboo seen biir maneeg seen bopp ci anam goo xam ne yàlla subhaanahu wa taala dina ko dina ko gërëm waaye itam mucc ci seytaane waaw kon ana ñi dëkk ci kër gi yan comportement lañ mu war a taqool ngir mën a juboo ci seen biir jubóog borom bi subhaanahu wa taala kenn ku ne maneeg boppam ci anam gu yàlla gërëm waaye itam kenn ku ne mucc ci seytaane kër ga itam daal mucc ci seytaane loolu bu ngeen ñu taaxeerloo daal euh, moom lañu fa yéene waxtaane suñu kemtulaay kàttan kon mbokk ñu leen di ñaan ñu bokk teewloondoo waxtaan wi ci anam gu teey lañ ko bëgg a waxtaane bu soobee yàlla mbokk yi kon ñu dem kenn ku ne xam na ne bokk na ci xéewal yi nga xam ne yàlla jagleel na ko doomu aadama xéewal yoo xam ne kenn mënu koo wutal àpp kenn mënu koo wutal yamuwaay yàlla ay xéewalam ci jaam bi ku ko doon wàññi coonaam mooy jeex waaye du ko mën a xaajal sax ba koy ba koy matal ndax moone ne wa in tacuddu nicmata allahi laa tuxsuuha inna allaha la gafurun rahim nee na doon wàññi xéewal yi ma leen defal man yàlla seen coonaay jeex waaye munu leen a dajal munu leen a matal munu leen a jeexal mboolem xéewal yi ma leen defal ndax man yàlla day ku mën a jéggale laa ku mën a baale laa waaye ku bari yërmaande laa waaw bokk na ci xéewali yàlla yi nga xam ne kuy wàññi kuy tudd xéewal yi war nga ko tuddaale kuy sant yàlla ci ay teraangaam itam war nga ko sante teraanga jooju mooy lan mooy xéewalug noflaay ak dallu ak repos gim ñu jagleel ci biir kër yi kër gu ne wala famille bu ne am na kër gu muy dugg goo xam ne falay amee dal gu koy may su bëggee lekk-lekk su bëggee naan naan su bëggee nelaw nelaw su bëggee sangu su bëggee fóot su bëggee féexlu yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen da koy mën a defee ca bërëb boobu ñuy tuddee ñuy tuddee kër kon nag suñu nekkee ci jamono ju nga xam ne fitna yi bëri na yi waral fitna itam bëri na kon laaj na euh, ñu xool kenn ku ne yan matuwaay lay jël takku ca lool am ca passeef lool gar bakkanam lool ci matukaay yooyu nga xam ne da koy may mu daw fitna da koy may mu daw fitna sàmm jàmm te loolu nag dara jiituwu ci sukkandiku ci yàlla wakiilu ci moom at tawakkul wal ictimaad ala llahi subhanahu wakiilu ci yàlla bàyyee sa lépp ngir mu jàmmal la may la dal may la quiétude may la calme may la stabilité ca kër ga waaye yàlla yàlla itam bay sa tool loo bàyyee yàlla ak say mbir loo bàyyee bàyyee yàlla ak say mbir itam sabab lu lu lay may jàmm lu lay may ak dal lu lay may ak noppalu loolu itam lu am solo la waaw mel na ne nag matuwaay yooyu yàlla yombal na ko lool waaw yàlla yombal na ko lool yombal na ko ba nga xam ne kenn ku ne loo góorgóorlu lu mu tuuti tuuti rek da nga mën a réussir ci jël matukaay yooyu lay lay may jàmm ak di tasaare jàmm ak di ko saxal ci kër yi waaw ndax saa yu amee ci kër rek kër ga dal kër ga neex lool kër ga xéewale lool waaye kër gu mu ñàkk kër googa day pëccëxoo moo fay am muy désordre wala anarchie waaw mbokk yi matukaay yooyu dara jiituwu ci gëm yàlla gu ànd ak jëf ju baax gëm yàlla ju ànd ak jëf ju baax al imaanu al maqruunu bil amali saalix waaw yàlla daf ne man amila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون nee na gépp góor gu takku ci def lu baax wala jigéen gu takku ci def lu baax te góor googee wala jigéen googe laata muy takku ci def lu baax jiital na ngëm tàggat xolam bi ba ak ngëm dëgër ca lool mu soog a takku ci def lu baax ku def loolu day boole mbaax goo xam ne ngëm yàlla koy jiitu danaa ko may dund gu dal une vie stable une vie sereine une vie paisible kon soo bëggee ma ne une vie sereine une vie stable une vie paisible muy dund gu dal dund gu ànd ak jàmm na boole ñaar yi gëm yàlla ak def lu baax waaw loolu nag mooy li ngay am ci àdduna muy dund gu teey gi dund gu dal gi dund gu ànd ak jàmm waaye bu yomal xiyaamee su ma la fayee rek da ruus su ma la fayee danga ruus da nga xam ne lebal nga ku weesu amuk pay lebal nga ku weesu amuk pay kon kër buñ ne bëgg nañ mu am jàmm te ña fa nekk tënkuwuñ ci ngëm yàlla ak jëf ju baax ñoo ñee kenn du ne bëgguñu jàmm waaye kon mën nañ ne dese nañoo xam yoon wi ñuy wi ñuy wute jàmm mbokk bokk na ci yoon yi tax comportement yi tax ak kër am jàmm mooy ñi nga xam ne ñooy fondement wu kër gi ñooy cëslaayu kër gi muy lan ñaari waajur yi père de famille bi ak mère de famille bi baay jeeg yaay ji ñu taqoo jikko yu baax kon kër su fekkee baay ju baax a nga fa yaay ju baax a nga fa parents yu baax a nga fa dina yombal njaboot ga ñuy meññ muy doom yaag jarbaad yaag sët yaag sëtaat ya dana yombal seenu baax lool waaw ndax su boobaa doom ya ak sët yaag jarbaad ya dañu copier rekk ci mbaaxu yaay yooyu ak baay yooyu nga xam ne ñoo fonde kër ga defe naa nit liñ koy wan mooy ëpp effet ci moom mooy ëpp impact ci moom liñ koy wax liñ koy wax defe naa am na ñu naan sax annaasu laa yataallamuuna bi aadaanihim bal bi uyuunihim nee na nit ñi dëgg la naam dinañ jànge ci li nga leen di dégtal ñu koy dégg ci seeni nopp waaye li nga leen di wan ñu koy gis ci lañ gën a mën a jànge am na sax ñoo xam ne dañ ne nit du jànge ci liñ koy dégtal waaye liñ koy wan ci lay gën a mën a jànge waaw kon au lieu que nga koy wax muy dégg waaye ndeke méthode bi gën a efficace méthode bi gën a efficace ci jàngal xale jàngal njaboot ak tàggal leen ci mbaax ak njub mooy deel def lu baax ñu koy gis waaw waaye wax lu baax ñuy dégg loola loola rek doyut loola rek doyut defe naa daanañu faral di wax ne euh, xawma Cheikh Abdul Ahad Mbàkke moo ko daan wax radiyallahu taala anhu ne nit melul na mu waxee na mu jëfe rek rek la la la loolu doon loo xam ne lu am solo la waaw bu ko kon ndeke nit li koy wan muy gis mu ëpp ci moom jeexit waaw defe naa sax dañuy wax ne ci wàllu communication benn image la mu mën a def ci askan euh, junniy wax mënu ko def ci askan kon benn image moo ëpp efficacité junniy kàddu junniy wala mille mots mille mots waaw bu kon doom yaa ngoog dañuy copier ci parents yi su parents yi jubee day yomb doom yi jub waaye maara day taali yàlla nañ ci yàlla musal bu parant yi juba dee ah néew ma doom yi du ñu jub de waaye dana jafe lool lool ndax yàlla li mu waxoon ne inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala aathaarihim muhtadun am na foo xam ne sax dane muqtadun waa kenn ku ne daal ni say baay mel wala say maam yomb nanga nga mel noona moo xam dañu jub bàyyi jub dana jeexital ci doom ya ba doom ya nekk doom yu jub maam yu jub dana jeexital ca sët ya ba sët ya yomba nekk sët yu jub waaye bàyyi juba jubadi ak maam yu juba jubadi mën naa jeexital ca doom ya ak sët ya ba ñu nekk doom wala sët yu jub wala yu jubadi boobu ngeen baal ni dañuy wax ne kenn ku ne sa tëbiinu baay moo damm sa ndigg wala moo rëq sa ndigg kenn ku ne sa tëbiinu baay moo damm walla moo rëq sa ndigg danañ wax itam ne kéwél du tëb doom ja bët kéwél du tëb doom ja bët yépp ay waxin la moo tax kon waajur yi ah nañu gën a farlu ci topp yàlla gën farlu ci sellal di jëf te yàlla tax gëm yàlla gëm gu raxul dara su boobaa itam doom ya danañ leen roy ci topp yàlla ak sellal jëf te yàlla tax bu ngeen demee ca yàlla ci alquran ba muy nettali xissab xadir ak yonent yàlla Muusa ca seen yoon wa seen voyage ba ak enseignement yu riche ya fa wadde am na benn séquence buy wane ne euh, maam yu baax wala waajur yu baax de seen mbaax googu dana def effet dana am impact dana jeexital ki seeni doom wala sët yi maam yu baax dina waral sët yu baax baay yu baax dina waral doom yu baax ca la yàlla wax ne yàlla daf ne wa amma aljidaaru fa kaana li gulaamayni yatiimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma soolixa fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma raxmatan min rabbik ba aaya bi jeex muy yonent yàlla Muusa bi mu àndeek xadir xadir di ko jàngal di ko waar ca yu yéeme yooyu yu doy waar yooyu xadir doon def te bokkoon na ca yu yéeme ya yu doy waar ya moom xadir fekkoon na benn miir buy bëgga a yàqu mu defaraat ko miir boobu de yàlla loolu la wax nee na wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma solixa fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kanzahuma raxmatan min rabbik wa ma faaltuhu an amri dalika tawilu ma lam tasti alayhi sabra nee na miir boobu nga xam ne moom la Xadir fekkoon muy bëgg a daanu wala mu weng mu jëlaat tempsam jubbantiwaat ko jekkalaat ko ba mu ne waat cocc ba mu normal bañ ko laajee lu ko waral mu ne miir bi day ñi ko moom ñaari xale la yoo xam ne ay jirim lañu ay jirim muy ay orphelin orphelin waaye li tax mu defar miir ba du miir ba en du miir ba ca boppam waaye la nekk ca ron miir ba la nekk ca suufu miir ba nekk na benn ndàmbu benn koom-koom bu rëy rëy rëy benn trésor benn koom-koom boo xam ne ñaari xale yooyu nga xam ne ay jirim yu màggagul lañ ñoo ko moom ñu ne ku leen fa ko fa bàyyil ku leen fa bàyyil koom-koom boobu wala trésor boobu seen maam waaw ndax seen maam nekkoon na ko baax a baax a baax euh, te am na koom-koom boo xam ne dencal na leen ko ca Euh, suufu miir ba suul ko fa ngir bëgg su sët ya màggee ba xàmmee jariñoo koom-koom boobee waaw waaw euh, koom boobu ndax ay alal la xaalis li nii la rek wax ya bari na ca lool lool waaw wax ya moom bari na ca lool waaw waaye ku mel na eh, abu dhar radiyallahu anhu neena inna alkanza alladi dakara allahu fi kitaabihi lawxun min dahabin musammatun maktubun fihi kon am na ñeenti phrase yi ca nekk yoo xam ne làmboo na ay njàngale yu riis ñeenti phrase yooyu ñeenti wax yooyu bi ci njëkk mooy dane ajibtu liman ayqona bil qadari liman asoba mu ne bokk na ci nit ñi ko jaaxal moom maamu xale yooyu nga xam ne ay jirim lañ ñu dencal leen trésor boobu koom-koom boobu ci suufu miir bi nee na bokk na ci nit ñi ko jaaxal waa ji ne gëm na ne lu am yàllaa ko dogal ba noppi mu wëlbatiku di samp ay xërëm di ko jaamu wala muy samp ay duur di ko jaamu waaw ndax ku gën ne lu am yàllaa ko dogal kay kooku li jaadu ci moom mooy daa war a bàyyee léppam mag yàlla kon mooy ku njëkk ki nee na bokk na ci ñi ko jaaxal ki ne gëm na ne lépp lu am yàllaa ko dogal ba noppi mu walbatiku di samp ay xëram wala ay tuur di ko jaamu beneen bi mooy wa ajibtu liman zakara naara lima doxika nee itam bokk na ci nit ñi ko jaaxal waa ji nga xam ne danaan moom de fu mu toll day xalaat safara ba noppi di tala ree bay keeku di tara xàqataay ba ca kaw ki nga xam ne nee na fu mu toll xelam day xalaat safaraak xataay baak tàngaay ba ak mettiwaay ba ba noppi fu mu toll di tala di tala ree bay xàqataay bay keeku kooku day loolu mu ne mi ngi koy fàttaliku méngoowut ak jëfiinam jooju nee na waa ajibtu liman dakaral al mawta lima wafala nee waa ji nga xam ne nee dee du jóg xelam fu mu toll mi ngi fàttaliku dee ba noppi mu ànd ak càggante fàttaliku dee gu ànd ak càggante daal nee na jaaxal na ko lool ndax fàttaliku dee li mu war a àndal mooy ka koy fàttaliku war naa farlu lool ci jaamu yàlla phrase bu mujj bi nag mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah amul jenn yàlla joo xam ne jaamu ko day jur njariñ ñàkk ko jaamu di jur lor kudul kudul ki bind asamaan ak suuf allah ki ñuy wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam sikk ci ne sikk ci ne yàllaa ko yónni ci ñun waaw kon mbokk yi mel na ne kon bu yàlla waxee ci alquraan ne miir boobu ay xale ko moom yoo xam ne ay jirim lañu seen maam dencal leen euh, trésor muy koom-koom ca miir boobu euh, te dafa bëgg alal ja ñoŋ ba ñu màgg ba maseur jot ci jariñoo ko xadir defaraat ko ngir suñu màggee jot ca koom-koom ba jariñoo ko koom-koom ba ndeke du oor ba rek waaye ndeke maam ja lam ca gën a euh, yittewoo la ko ca gën a ñor mooy Euh, ñeenti kàddu yooyu mu ca bind nga xam ne njàngale la yoo xam ne njàngale du ko ëpp njariñ àdduna njàngale du koy ëpp njariñ àllaaxira waaw kon loolu day wane ne boo bëggee sa njaboot baax baaxal ndax maam jooje ka su baaxutoon njàngale yooyu du mën a xam njariñ ya ba koy jariñoo ba noppi bëgg ay sëtam jariñu ci waaw kon mbokk yi ku bëgg sa njaboot baax yow baaxal rek waaye jërul nga naan leen baax leen déedéet boo bëggee ñu fonk julli del julli rek waaw kër goo xam ne parents ya waxtu julli du leen raw foo toll da gis xale ya euh, di fowe ak noddu di fowe ak julli lu am solo la mbokk yi bokk na ci liy tax ak kër mën a doon kër gu neex te dal bokk na ci li koy waral li mayee kër gu dal mooy kër ga ñu fay jàng alquraan waaw kon képp koo xam ne bëgg nga sa kër ànd ak jàmm bëgg nga sa kër seytaane di ko daw ndax gépp kër goo xam ne njaboot ga xulook xeex ak bëree ka dóorantee ka meroo kenn ku ne di ciipatu sa moroom aka daw sa moroom bokk na ci liy waral musiba yooyu kër gu ñu gental kër goo xam ne dañu faa sàggane jàng alquraanul karim kon inna li kalaamillahi taala ta'thiran cajiban fa huwa taaridun lilshayaatin wa sababun li tanazzuli almalaikati alkiram kon ndeke alqur'an am na effet bu am solo am na jeexit ju am solo ci lan ci luy waral njaboot gi nekk ci kër ga mën a yaru lool mën a jub lool mën a juboo lool waaye tamit alquran am na jeexit ju am solo ci dàq seytaane ba ñu sori kër ga ñuy jànge alquran waaye alquran itam bépp kër guñ koy jànge malaaka yi yërmande ya dañ fay dañ fay wàcc defe na doon naa ko wax ci baatu olof di joxe misaal ci kër goo xam ne dañu fa sàggane jàng alquran wala ñu ne fa tudd yàlla na fa seytaane di ame doole dama waxoon ci olof ne fu ak cell te wuutee ak ceytaane wuutu ko fa fu ak cell te wuutee ak ceytaane wuutu ko fa waaw kon loolu lu jar bàyyi xel la kër bu ñu bëggee mu am yërmande mu am sécurité dañu fa war di jàng alquran moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha azza wa jalla illaa xaffathum almalaa'ika wa gashiyatuhum arrahma wa nazalat calayhim assakina wa dakarahum allahu fi man indah muslim yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nag gépp kër goo xam ne ña fa nekk dañoo dañoo fonk jàng alquran lool di fonk wàcce téereb yàlla bi di fonk tudd yàlla muy dikrullah nee na kër gu ñu rek yàlla subhaanahu wa taala dina leen ko fayee ay mbir dina leen ko fayee eh, ñeenti mbir benn bi mooy dana leen booleeg malaaka yu leen di aar dana leen sànge mbalaanum yërmaande dana leen may ak dal waaye dana leen kañ di leen bàkk ca malaaka ye tudd yàlla ñeenti yi lay maye yàlla dalay boole malaaka yu lay aar sàng la yërmandeem may la jàmm akok dal waaye dila kañ ca malaaka ya kañ di la tagg loolu nag buñ jàpp ci jàkka yi rek la yam wala daara yi wala kër yi waaye fépp la bërëb yépp la bu leen jàpp ne ci jàkka yi la rek waaye jàkka yi suñ fay jàng alquran nañ am ñeent yooyu daara ju ñuy jànge alquran danañ am ñeent yooyu kër gu ñuy jànge alquran itam danañu am ñeent yooyu mbokk yi bokk na ci e, yi maye jàmm ci kër itam saaru baqara kon alquran yépp ñu koy fay jàng baax na waaye saaru baqara itam am na efficacité bu particulière ci mën a instaurer la paix pour mën a indi ak jàmm akuk dal ci kër loolu nag boo demee ca saxiixu muslim danga fa fekk xadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci abu hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tajcalu buyutakum maqaabira inna shaytaana yanfiru min albayti alladi tuqra'u fihi suratu albaqara rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi nee na seeni kër bu leen ko def ni ay sët bu leen def seeni kër ni ay cimetière ay cimetière muy ay armeel wala ay sët ñu ne ko waaw loolu nu muy demee mu ne xanaa mooy ñu sàggane fa jàng suuratul baqara waaw ndax bépp kër goo xam ne dañu fay jàng suuratul baqara jàppal ne kër gu seytaane ragala ngoog fu ko seytaane jube rek ba nara dugg rek bu yégee ne dañ fay jàng suuratul baqara rek day daal di daw day daal di daw waaw loolu kon lu jar a bàyyi xel la moo tax itam doom yi di leen dugal ci daara yi ñuy jàng ba fer ijji mën a liir buñ mënee mokkal kaamil bi ñu mokkal ko buñ ko mokkalul itam luñ ci mën a bari lu ñuy mokkal nañ koy def ndax danañu aar seen kër aar ña dëkk ca kër ga aar ña dëkk ca koñ ba defe naa mas naa dégg ci mag mu baax mu ne Euh, ayatul kursi yu dey ku ko mokkal ayatul kursi yi ku ko mokkal guddi jot ngay tëri ngay tëdd te boole woo ko ci say léemaay koñ ba nga dëkk wala village ba nga dëkk moo xam koñ la wala quartier la wala village su fa jaan màttee nit yaa tooñ waxiin la waxiin la mooy ndeke ki ki farlu ba saa yuy tëdd mu boole ayatul kursi yi ci muslaayam jàng ko dana aar boppam aar ñi mu bokkal dëkk ñépp muy ñi mu bokkal village wala quartier wala koñ ba euh, jaan du fa màtt kenn ak yeneen ak yeneen ci ay lor yoo xam ne danañ ci mucc waaw mbokk yi kon loolu nañ ko bàyyi xel sama waaja maa ngi koy fàttaliku si njaay moom de këram dafa tegoon rajo bu mag boo xam ne dafa cay def benn clé USB boo xam ne alquran la def ba kaamil bi ma sëkk waaw saa yu ubbee rek commencé ca fatiha baqara ba minal jinnati wan naas waaw bu kaamil bi wàccee mu commencé waat kër ga lool rek nga fay dégg day tax njaboot gi gis nga te xale dafa mën a jàpp gis nga kër bu ñu fay faral di teg alquran xale ya fa juddoo màggee ci environnement boobu ambiance boobu dañuy mokkal lu bari te duñ ko jàng te duñ ko jàng am na benn bis euh, benn waaye di ma yóbbaale ci oto maag ñeneen sax muy teg alquran am ko ne ko ji neex na mu ne gisoo sama doom yi de fim ne saar yu bëree bëri dañ koy tari te benn ustaas jàngalu leen ko wala imaam wala sëriñ daara waaye dari man oto bi alquran laay teg kër ga itam alquran laay teg te xale xale dafa mën a jàpp gisu leen loolu yooyu jara bàyyi xel la waaw kon kër gu ñuy jàng suuratul baqara seytaane daf fay daw waaye kër guñ dul jànge alquran moo ki armee la yem ndax kër gu gi kër gu gent la gent waaw mbokk yi bokk na ci liy tax kër am jàmm dañu fa war di tudd yàlla rawatina bu ñuy dugg waaw boo demee ca bërëbu liggéeyukaay ba bay wàcc bay ñëwaat ci kër gi wala nga dem ca marché ba bay ñëwaat ci kër gi wala nga dem ca boutique ba wala nga dem ca ngénte wala sarax wala dëj wala céet wala takk wala anniversaire wala boutique ba foo dem bay ñëwaat ci kër gi daal booy dugg na nga na tudd yàlla subhanahu wa taala waaw li annahu almakaanu alladi yawi ilayhi annaas liyajiduu fihi raxata wal amna wa tumanina nee na kër mooy kër mooy bërëb bi nga xam ne fa la di suturloo fa la nit ña di yaakaara yaakaara amee noflaay ak dal ak stabilité ak jàmm daal jàmm waa jëlee nañ ci jaabir ibnu abdillah radiallahu anhu mu ne dafa dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ida daxala rajulu baytahu fa dakara allaha inda duxulihi wa inda taamih qaala shaytaanu laa mabiita lakum wala ashaa wa ida daxala falam yadkur illaha inda duxulihi qaala alcheytaanu adraktum almabita wa ida lam yadkur illaha inda tacaamih qaal yani alcheytaan adraktum almabita walcasha rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit day soo amee farlu gu tol ne saa yu doxee ay soxlaam bay dellusiwaat ci këram buy dugg mu wax bismillah buñ ko taajalee ndékki wala añ wala reer bala balaa muy jël loxoom di ko yàpp ca ñam wa mu wax bismillah soog a commencé lekk su boobaa day mel na tas na yaakaari seytaane ndax seytaane su boobaa danaan kër gi day amuñ fi fu ñu fanaan amuñ fi fu ñu reere waaw mooy su fekkee eh, eh, dangay dugg sa kër nga daal di wax bismillah saa yu ñuy añ balaa kenn lekk wax bismillah bu ñu reer balaa kenn dugal loxoom ca ndabul reer ba wax bismillah bu ñu ndékki balaa kenn jël kaasu kafeem wala kaasu meew wala taasu mbu eh, dutee wala yooyu wala balaa kenn jël mburóom wax bismillah su boobaa seytaane daan o oh, kër gi de amuñ fi place amuñ fi fu ñu fanaan amuñ fi fu ñu lekk waaye su fekkee nit ki buy dugg day fàttee wax bismillah moom daal day ñëw ak waaxoom mu réy rek daal ne saraax ci biir kër ga te du wax bismillah seytaan dinaan waaw kay am nañ fu ñu fanaan nag ñu ne déetawaay añ ba jot ñu añ ba mu jeex te waxuñu bismillah reer jot ñuy reer ba mu jeex te waxuñu bismillah ndekki itam ñuy jël kafe ya taasu kafe yi wala meew ya wala dute ya wala ataaya ya te waxuñu bismillah seytaane ne waaw kay am nañ fu ñu lekke am nañ fu ñu lekke kon li ma bëgg a wax mooy sa kër boo fay dugg te waxoo bismillah seytaane day dëkk ak yow waaw booy añ wala ngay reer wala ngay ndékki te waxoo bismillah soytaane day lekkandoo ak yow te gépp kër goo xam ne nag ña fa nekk soytaane lañu ñu dëkkal du ñu jóg ci xuloo dangay gis ñu naan ay kër sàngam ak ah ñoo bari coow fu ñu toll ñu ngay xuloo ko day yat rek ak yàqantey der waaw fekk na mën naa ku ciy génn day génn rek te du wax bismillah bismillah kuy dugg day duggaat te du di lekk te duñu wax bismillah di naan te duñu wax bismillah yooyu jara bàyyi xel la mbokk yi bokk na ci tax kër am jàmm ñaar ñi nga xam ne ñoo fonde kër ga muy lan père de famille ba ak mère de famille ba muy soxna si boroom kër gi ak soxnaam ñi nga xam ne ñooy baayu xale yi di yaayu xale yi war nañoo fexe bay dund ci jàmm akuk déggoo akuk juboo gu mat sëkk sëkk sëkk waaw fexe ba am mat gu toll ne bu ñu amee problème ñu régler ko gi seen biir discrètement waaye ñaari way dencante muy jëkkër ak jabar yoo xam ne saa yu ne ñi ngi xuloo seeni doom di ko fekkee di ko dégg fu ñu toll yaay jaag baay ñu ngay dóorante doom ya di ko di ca teg seen bët kër googa du mën a am jàmm du mën a am jàmm waaw defe naa Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu daana wax ne xale bu fekkee xuloo ñaari waajuram ñetti yoon gàllaajam day toj ah xale su fekkee fu yaayam ak baayam di xuloo benn yoon ñu ne déetewaay mu fekke ko ñaar yoon ñu ne déetewaay mu dellu fekkewaat ko muy ñetti yoon bu ñetti yoon yamatee rek gàllaajam day toj moo tax nañu fexe ba ñaari way dencante yi couple yi problème bu am seen diggante ñu régler ko seen biir bu leen tawee ñu dem ndàng ci ay kilifa wala sëriñ wala imam wala ustaaz wala sëriñ daara wala chef de village wala chef de quartier mu régler leen ko te doom ya doom ya buñ ca amu yoon buñ ca jot waaw waaye këral yi am ak dispute yi am muy xuloo yeeg xeex yeeg xëccoo yi bu ca doom ya di teg seeni bët dey doom yooyee ngir ñu jub ngir seenub yar mat ah yàlla mën na lu ne waaye dana jafe lool de bokk na ci liy waral kër am jàmm nit ki soo amee doom na maandu seen diggante ca kado yam leen di may ak sarice yam leen di jox ak yére yam leen di jëndal ak dàll yeeg yu mel noonu waaye saa buy favoriser ñenn ñi di marginaliser ñeneen ña su boobaa mën naa am ña ñuy marginaliser am frustration am xol bu tàng ba jippi seeni baay bi leen di suufeel wala seeni yaay ji suufeel su boobaa sax mën naa am njaboot ga féewaloo looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum na ngeen ragal yàlla te ngeen di jëf luy tax seen njaboot seen njaboot juboo te bokk na ci li leen di may njaboot gu juboo na ngeen maandu ci ni ngeen di jëflanteeg seenu njaboot waaye doom bu demee banaan baayam yow de bis bu set asan rek ngay jëndal dàll wala daba rek ngay jëndal dàll wala asan rek ngay jëndal yére wala moom rek ngay jox orange wala ngay jox orange wala daba rek ngay jox gato bi wala sa téléphone bi de yow saa yu ma ko laalee nga bañ waaye bu ko asan laalee nga nangu wala daba te ablaay mi kaas loolu ci asan wala daba mook asan wala mook daba ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk ndey wala ñoo bokk baay yow baay ji nga xam ne yaay gënale yaay ñàkk yamale sa njaboot yaa ngi féewale sa njaboot te yëgoo ko yaa ngi tas sa kër te yëgoo ko léeg itam nga gis baay wala yaay ju naan asan de yow duma wax ak yow ablaay rek laay waxal ndax yow asan sa xel matut wala yow asan juboo yow asan nitewoo ablaaye la gën a jub wala moo la gën a nitee te fekk asan ak ablaaye ñoo bokk ndey baay yaa ngi féewale sa njaboot te yëgoo ko jara bàyyi xel la waaw mbokk yi kon kër gu am jàmm lu jara sabab loola dañ koy liggéey de dañ koy liggéey bokk na ci niñ koy liggéeye mbokk yi ñu fexe ba kër ga bu mu am lenn lu xaraam waaw buñ fa seetaan ay vidéo yi sàgganu vidéo yoo xam ne day am ñuy fecc di sàgganu wala ñuy wane seeni awra wala ñu fay wax de paroles des paroles indécentes wala de danses obscènes des paroles indécentes wala de danses obscènes fecc sàgganu wala waxi sàgganu nañu fexe ba buñ ko buñ ko seetaan buñ ko déglu ca kër ga wala image pornographique vidéo wala image pornographique buñ ko fa seetaan ca kër ga nañu fexe ba kër ga bu mu am ay statut bu mu am ay xaj muy dawkat bu ñu fa déglu musique bu ñu fa déglu musique am na ku ma doon laaj ci wàllu yar xaj ma ne ko yar xaj day li ci islaam wax lenn la ñett la ci maye ñett daal autorisé na ko muy lan xaj buy sàmm ay tool buy garde ay tool wala xaj buy sàmm ak jur nga am ay nag wala xar wala bëy nga bëgg xaj ba sàmmal la ko wala ay ginaar ak yooyu tabaarakallaahu wala xaj buy rëbbi xaj bu ñu tàggat ba mu mën a rëbb ngay ànd ak moom di rëbbi bu dul ñett yi nag dañuy wax ne alkalbu wa sooxibuhu kalbaani xaj ba ak boroom ñaari xaj lañu dawkat ak boroom dawkat ba nga xam ne waxuñu nag boroom dawkat yëpp muy dawkat boo xam ne sàmm tool taxu ko jóg sàmm ak jur taxu koo jóg rëbb taxu koo jóg di jaay tubaab tubaab lu rek moola ci dugal euh, le Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma waxoon romb ci génn kër ñu bind ca buntu kër ga chien méchant chien méchant sëriñ Cheikh Mbacke liir ko ne fii de am na faute grammaticale ñu ne ko lan la Mbacke mu ne dañoo waroon a bind chien chien terminaison s ak méchant terminaison s def ko au pluriel bañ ko def au singulier te xam ne euh, xaj bu dul ñett yi bu dul buy garder tool wala buy sàmm ak jur wala buy rëbbi ah loola ku ko yar te ñetti jublukaay yi benn taxu ci xaj ba ak boroom ñaari ñaari dawkat lañu waaw. waaja ne ma waaw ban couleur moo ci tane manoka ne ah, na doon na doon couleur bu ne te a doon ñuul maanaam xaj bi xaj yi la islaam may sax muy buy garder tool wala muy sàmmug jur wala muy rëbbi bo manee wut bu yoree melokaan baneen bu dul bu ñuul ndax dañu ne alkalbul aswadu min ashaytaan waaw nee nañ xaj bu yore couleur noire euh, kooku day day day symboliser shaytaane loolu jara bàyyi xel la waaw day symboliser seytaane kon daal li ma bëgg a wax mooy kër su fekkee saa yu ne musique baa ngay jolli ñu fay seetaan ay sabar di fa seetaan ay film wala image photo pornographique ay xaj di fa nekk kër googu nañu jàpp ne créer nañ environnement bu propice buy tax seytaane mën a dëkk ak ñoom waaw kër googu seytaane moom Eh, dana fa dana yaatu lool dana fa yaatu malaaka yi sori fa lool itam waaw te kër googu nag kër goo xam ne seytaane yaatu na fa malaaka yërmaande sori fa ah kër googu de naka lay amee jàmm dina ma jaaxal kon yooy nañ ko moytu bu baax a baax a baax a baax waaw ndeysaan eh, boo xoolee ku ñu wax abu talha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tadxulul malaikatu baytan fiihi kalbun wala suuratun muttafaqun alayhi waaw abu talha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaar ñii kër gu ñu nekk malaaka yërmaande duñ fa dugg ñu ne ko yan ak la mu ne kër gu ñuy yar ab xaj te ñett yi ma waxoon taxu koo jóg sàmm tool taxu garde ay tool taxu ko jog sàmm ay jur taxu ko jóg rëbb taxu ko jóg dañ ko faa yar rek di wane ne kër gi moom dañoo civilisé dañoo branché dañoo tubaabe kër googu malaaka malaaka yërmaande du fa dugg waaye kër gu am ay statut itam statut mooy nataal yuy wane lu am ruux muy nataalu fas wala xaj wala bëy wala kéwél wala gaynde wala yu mel noona nee nañ képp ku nataal lu am ruux ci àdduna bu yomal xiyaamee dañ naan la ah da ngay jéem a toppandoo yàlla waaw léegi na toppandoo gi mat muy lan fexeel ba def ci ruux muy noyyee ka dox te doo ko man boo ko mënul rek la nga doon defar ci ay nataal yàlla boole la ñoom ñu di la dóor yow mi yow mi ko defaroon yàlla nañ ci yàlla musal wala yàlla boole waajaag yamu yettoon ñu di ko dóor waaw ñu di ko dóor waaw loolu taxoon ma ne sama waa jooju nga xam ne kër ga moom euh, kasetu alquran rek la wut moo xam ci carte mémoire ba loola wala clé USB di ko teg rek waaw kër boo bëggee seytaane daw fa waaye dee fa teg alquran dee fa teg zikrullah dee fa teg julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa kër ga danañ juboo danañ jàmmoo ndax kër googa malaaka yi malaaka yi yërmaande duñ fa jóg seytaane itam dafay dafay daw mbokk yi bokk na ci ni ñuy taxawoo kër bul def itam lu jóg rek nga kaas lu ndaw ak lu yamamaay ak lu rëy lu jóg rek nga kaas loolu baaxul léeg-léeg itam del xam di ca bàyyi del dajale maanaam bul def luñ def tey rek lu mu ndaw ndaw nga kaasoo tey waaye léeg-léeg mën nañoo def dara nga bàyyi noonu dajale ko dajale ko ba mu bëri nga woote jataay woote réunion de famille famille bu dul am réunion de famille rek famille boobu du ñu mën a déggoo loolu jar a bàyyi xel la waaw waaye nag suñ defee loo xam ne dafa fés dafa araam ba ëpp dafa ñaaw ba ëpp loolu moom jërul dajale waaye yu ndaw ndawaan yi daal yu ndaw ndawaan yi waaw yooyu moom waa léeg-léeg xëy na xale yi bëree nañ waaw bu def fuñ bëree rek nga wax waaye mën nañu bëree nga ne cell bëree ñu nga ne cell nga bàyyi ba benn bis rek ngeen ne eh, xanaa yéen soxlawu leen a noppal seen yaram bi. xanaa yéen li ngeen di jàng buggu leen mu dugg xanaa yëgu leen ne euh, seen bàjjan bi buggul coow wala seen tante ji wala seen nijaay ji buggul coow te bu ngeen di dee coow wala ngeen di bëre day tax ba ñu perturbé wu ñu énervé wu ba buñ doon xalaat duñ mën a tee xalaat bu ñu bëggee nelaw duñ mën a nelaw ki bëgg bind sax du bind ki bëgg a def ay recherche du ko defati yooyu nañ ko bàyyi xel waaw waaye itam léeg-léeg itam xale-xale la du mën a ñàkk def ay rëcc rëcc moo tax yenn rëcc rëcc xale yi itam naam yoo xam ne bàyyil rek mu jàll waaye bu dee ku yëngal ab saañ sax wala mu yëngal bul sax nga ne ko tegal bul bi loolu itam baaxul waa ndax xale léeg-léeg mënut a ñàkk fo am na lu imaam ahmad ibnu hanbal rahimahullah wax nee na tisaatu achari xusni alxuluqi fi taxaaful waaw nee na rafet jikko day bu doon fukki xaaj la bu doon fukki tomb la wala fukki matière la nee na juróom-ñeenti yépp juróom ngi ci xam ba ca xam ba ca waaw waaw rafet jikko bu doon dafa am examen boo xam ne dañ caa soxla dix points waa ji mën a réussir examen ba na jàpp ne neuf points yépp mu ngi ci xam ba ca rafet jikko bu doon dafa am examen boo xam ne dañu cee soxla dix points dix points dañu bàyyi xel ne neuf points yépp ñu ngi koy amee ci léeg-léeg di xam ba ca waaye lu ne nga bëgg koo lijjanti itam gënut kon mbokk yi yàlla nañ yàlla may ñu ragal yàlla yàlla na yàlla may ñu ci ñu xër ci def lu baax yàlla na yàlla may ñu muñ yàlla na yàlla may ñu pasteef euh, yàlla na yàlla may ñu texe tabaarakallah yal na yàlla jéggal ñu yal na yàlla julli te sëlmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam ak saxaabaam yal na yàlla tàppe xolu al umma al islaamiya na yàlla wàcce jàmm ci àdduna bi yépp yal na yàlla mayñu e, texe àdduna ak alaxira jàmmi àdduna ak alaxira e, ñu ngi leen di ñaax ngeen abonné ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimin wassalaamu alaykum wa